salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. na def. ça va. ça va. Euh, fii la kër Pa Alaaji Dia. waaw sama papa la. ok man naa si laa tudd. naas. waaw dama nekk ci benn agence publicité léegi euh, dama dégg ne am na benn xar bu mag bu fi nekk. léegi dama bëggoon tabaski bu ñëwee dañuy jël ay xar yu mag di ko loué benn journée pour affaire publicité léegi ma bëggoon xam ndax mën naa gis xar bi ñu may wax. am na kay am na xar mu mag de ngande bëccëg bëccëg. biir kër gi sama papa yow mii da dañoo ma doxaan ma nekk si far. non ma indi oh, maa bañ maa bañ danga may ndam ba pare wala man xoole boo ma a ah sax lu yëgul yooyu dañ xam naa loolu mais doo gis xar mi. mais bàyyi ko rek après bu ñu waxtaanee rek. danga may wax ndam naa la jëtëm ba pare. wala doo ko gis eh, sama xar la sama xar papa ba pare. laptop waxoon laptop la waay ah déedéet ah fóon fóon. non non non non non. kon bàyyi ko fóon wala doo dugg sama kër papa fóon ah aywaay neex neex isaay kay kay xarwaay. tey ñëwal yan gaay gaay ba ba dee ñu xarwaay yi. waaw. waaw bii moom moom macha allah moom macha allah suur na te gis naa xoolal waa koñ bi ah ñun ñoo fi gën a ngand di la xaar te ku nekk ñëw na fi pour jënd ko ñu bañ. waaw ndëmbe yow ndëmbe ndëmbe yow looy wax. sama jabar bi laa ñëw ñu may ko xam bi kii sama gerte paapa kii mooy sama paapa. maaleykum salaam. waaw ah, donc mën naa rek maa ngi seeram jàpp alhamdulilah. alhamdulilah. sama gerte man Nancy laa tudd. Nancy. waaw dañoo nekkoon si benn agence de publicité. waaw léegi dañuy xool xar yi gën a mag ci benn gox. ñu jël ko filmé ko luwee ko benn fan pour ah waaw waaw ma ko wax ak sa doom bi mu ñëw waaw ah, moom de daa baax rek waaye day bete bete mii day mën naa dem fu ne de maa ko moom wax dëgg yàlla mën na ma ma nii ma wax ak kii kii it. mbaam tooram ma man daal li la wax ak moom sama gelle de. mën na ba demal toog ne xaar ma rek ma wax ak kii. naa si nawet def. maa ngi fi rek Bachir Abdiab. jàmm yéen ngeen ne seen agence bi fan la nekk fii. Euh, ñun suñu agence bi damel la nekk. ah damel damel yéen moom daal dañuy tax xarit rek teg teg ko. waaw di leen pour benn fan. pour benn fan pour gars yi di leen seetaan. kii man de sama man day man day bete bete yàlla bu ko jot yow borom kër. non man ma ko. ah <laughs> maa ngi de daal <laughs> soxla la <laughs> maa ngi mu la nga dee de. nijaay. Eh? ñëw ñëw. ay waay Samba. ñëw doxal. kan. yow da nga doxal. ay ah, kon yow fii diggante ba te comme yaa ngi dégg doxal. da nga doxal dégguma nijaay maa ngi toog soo ne dee doxal. man li ma wax mën naa cee delluwaat. dama ne ko naase bu dee rek la tax a jóg bete bete ngi ne mën nga koo jël mën nga koo yóbbu. Eh, nga def sama kër. la nga def sama kër kay kay. la def sama kër. bi dafa ko jagatu xanaa nga xaar au oh, oh, moins sama ngoon si waaye fajar maam 10 heures nit ñi nekkee guñu ngay jagatu. génne sama kër. Eh, ni maa leen ëpp bopp fuuf.